الحق بالحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم moy bisu nit ku bax la sama xarit la sama jigen la waji sax dafa keuf sama lañ ci maa ko naroon a marié quoi mais gahen bi dal kon bu waji ji kon dala jël jël bu jek ma jitu ñu ngi wax alhamdulilahi rabbil alamin li tax ñuy sant yàlla fekke yàlla mi nga xamni mo def ñu fekke bésu tay bi ñu ngi koy sant di ñaan yàlla sëy bi yal na ko yàlla barkeel. tubaarkàlla macha allah di sant yàlla tey man ak baayam bi ñu fekkee doom ji ñu di ko jël loolu jar naa sant yàlla di sant nag ngañ jéey mi nga xam ni moo romb buntu kër yëpp ñëw jël nga ngañ mënuñu ko fay waaye dañu koy ñaanal yàlla yal na ko yàlla fal cat yal na ko yàlla aar te iir ko yàlla sàng malaanum sutura yal na yàlla yéegal maqamam ba yéegal ko fuñ ko foogutoon. Bijou sama ja sama soxna la parce que sama rakku soxna la mais xanaa di ko ñaanal di ko ñaanal mu doon sëy bu barkeel Bijou xale bu baax la waaw ku baax la ñu ngi koy ñaanal une réussite ci ci ci ci kii du ma ko yeb xam naa lépp li ko war dina ci nekk rafet naa ci njort bu baax ñu ñaan ci Serigne Saliou sëy bi barkeel. njaboot bu góor ak gu jigéen sosoo ci ci barkeb Serigne Salim jërëjëf tubaarkàlla macha allah jagana mangare me kombe kombe fulle atita soose mu naa maa yaxal alaaji Musa jagana dégul dégul dégul alaaji Musa jagana Ablaye jagana la ñuy woowee baayam Youssouf Jagana la ñuy wooyee baayam Youssouf Jagana Alaaji Ablaye Jagana la ñuy wooyee baayam Ablaye Jagana Ibrahima Jagana la ñuy wooyee baayam Ibrahima Soyibu la ñuy wooyee baayam Jagana manga remme kombe kombe fulle ati taso sebu naa maa yaxare sama jëkkër gi waaw waaye Ramatulaay Jàllo la ñuy woowee yaayam Moussa Jàllo la ñuy yaayam Issa Diallo mooy baayam jagada maa nga remme tuwaar kàlla macha Dembaya Dimbaya Serafiya Almamiya